ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme ni ngeen ko xamee ñuy dëgmal lii di 4 avril di bés bi ñuy màggal suñu réew bi mu moomi boppam ci noone ñu def vidéo ngir fàttali leen indépendance googee ci yan contexte lañ ko amee histoire bi nga xamante ni mooy bi wér parce que ñu bëri yaakaar nañ ni yenn ci ay doomi aadama wala yenn ci ay sénégalais ñu xeex ngir indépendance indépendance alors que loolu amul tey bu ñu nee indépendance am na ñoo xam ne seen xel day dem ci Senghor jàpp ni bokk na ci ñi xeex ngir Sénégal am indépendance ko loolu amul am na ci ñeneen tamit ñoo xam ne aakimoo nañ li nga xamante ni mooy indépendance bu Sénégal alors que demeewul li nit ñi foog donc looloo tax ñuy dellu ci période boobu noonu xamal nit ñi lan moo amoon ñen ñooy les vrais acteurs maanaam nit ñi nga xamante nit ñi ñoo taxawoon temm jàmbaarloog li nga xamante ni mooy France pour laaj lii di suñu indépendance lépp dinañ leen ko leeralal ci vidéo bi nii laataa ñuy xuus ci vidéo bi dañuy def ben rappel bu ndaw ci li nga xamanteni moy avant indépendance du Sénégal lan mu xewoon manam jamonoy colonisation juste pour xamal leen que ni colonisation française mi ngi tambali ci jamono 17 dix-septième siècle waaye ci année 1890 le Sénégal nek officiellement li nga xamanteni Moy colonie française manam deug bo xamanteni France def ci tek loxo gouverner ko diriger ko. loolee liñ ci mën a jàngat mooy français yi noot nañu lu ëpp un demi siècle laata ñuy jot li nga xamante ne ni mooy suñu indépendance manifestation yu njëkk nag jëm ci indépendance ñi ngi tàmbali woon ëllëgu seconde guerre mondiale bi Vincent Auriol ñëwoon fi nga xamante ni mooy Dakar en avril 1947 boobu la ñu njëkkee gis ay nit yu manifesté wu ngir ne suñu réew dafa soxla indépendance mais jamono jooju amuñu woon li nga xamante ni mooy ay ndëgër laay pour xeex li nga xamante ni mooy colonisation boobu noonu maanaam amul woon ay kuréel ay organisation ak ay acteurs yoo xamante ni nii bokk nañ ci ay organisation boole seen doole taxaw tëral ay programme ne nii ak nii lañ nar a doxalee pour laaj indépendance organisation bi ci war moo fi newul woon donc il fallait que nous xaar fukki at pour gis ay nit yu organisé wu taxaw français gi indépendance immédiate manam mom sa ci ni ñu africain de l'indépendance PAI bi nga xamanteni ni dafa yu ci francophone France colonisé PAI ci indépendance immédiate partie boobu noonu moo organisé wu xeex lu mat ñaar fukki at ak ñett yu amul àpp maanaam 1957 ba 1980 taxaw xeex pour que réew yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci Afrique francophone moom seen bopp avant ñuy am indépendance maanaam le 1957 ba août 1958 PA yi moo nekkoon benn organisation politique bu lëkkaloog ak ay organisation ndaw ñi ak ay syndicat ak ay jigéen jigéen ñi nga xamante ni dañ leen génne ci histoire li nga xamante ni mooy xeex indépendance alors que ni am nañu rôle bu am solo buñ ci joué ñoom jigéen ñi donc PA yi moo àndoon ak acteurs yooyu noonu di xeex le Sénégal am indépendance jamono jooju amoon na parti bi ñuy dippee regroupement africain section Sénégal muy PRA ki ko jiite woon Abdoulaye Li bi tënku ci congrès bi nga xamante ni amaloon nañ ko Cotonou ak réew Afrique yi nga xamante ni dañu bëgg indépendance amoon na tamit section sénégalaise du rassemblement démocratique africain muy MPSRDA ki ko jiite woon di Doudou Gueye ak Gabriel Darboussier Nyom tamit bokkoon ak yene ki nga xamante ne nii mooy abdoulaye li maanaam indépendance bu sénégal ak réew afrique yi nga xamante ne france daf leen teg loxo daf leen moom parti yooyu ma leen limal ñoo taxaw ne dañuy voté non ci référendum bi nga xamante ni dëggul proposé na ngir ñu ko en septembre 1958 parce que jamono yooyu ngir ñu am suñu indépendance sénégalais yi dañu waroon voté ci ab référendum boo xamante ne nii dañuy voté waaw wala déet waaw ngir indépendance progressive maanaam indépendance boo xamante ne nii ndànk-ndànk lañ koy demee mais dañuy des ci li nga xamante ne nii mooy ndogalu France loolee la Léopold Sédar Senghor moom bëggoon parce que Léopold Sédar Senghor dafa ne woon mënuñu tëb tëb rek am indépendance dañuy des di woy ci li nga xamante ne nii mooy loxoy France France dañu accompagner dañu proposer ay normes administratives alternative ñu ciy dem ak ñoom loolu Léopold bëggoon ca beneen wet mu am parti yi ma leen limal sànq yi nga xamante ni ni ñoom dañu taxawoon ne dañuy voté noo non mooy dañuy am suñu indépendance totale moom suñu bopp ba mu jeex tàkk France rocceeku ci anam gi ñu doxalee suñu réew yi. waaye un an avant ñuy voté li nga xamante ni référendum boobu noonu 15 septembre 1957 ba 20 septembre 1958 PA yi doon organiser diverses manifestations di dajale nit ñi campagnes di organiser ay meeting fait ci Sénégal di def ay campagne de proximité di dem ci nit ñi di organiser ay ndaje public nit ñi di ci teew ay séminaire d'éducation publique di diffuser ay journaux di taf li nga xamante ni mooy ay tract ci mur ci dëkk bi ngir xamal nit ñi lan lañ war a voter bésu élection yi bu ñëwee maanaam ñu voter non non ngir rocceeku ba set ci li nga xamante ni mooy moomeelu France ngir moom suñu bopp. ci jamono jooju PA yi yamul rek ci li nga xamante ne nii mooy di promouvoir li nga xamante ni mooy moo door d'indépendance bi maanaam ne askan wi dee leen voté mais du doon profité ci campagne am ngir di jàllale message yi ci li nga parce que avant boobu noonu booy xool tubaab bi colonisé mais def ay campagne am ci yi nga ni ñun la maîtriser pour message bi nga xamante bëgg na ko ko ci askan te boo xoolee méthode boobu noonu mooy woy ba léegi tey kenn mënatu fi def campagne politique di utiliser ay termes tubaab wala yoo xamante ni nit ñi duñ ko comprendre booy xool ba ci seen affiche politique yi ay mots olof la ñuy utiliser parce que xam nañ ni loolu mooy tax seen message ñu mën ko saisir te loolu lépp mën nañ ni liggéeyu PA yi la jamono yi nga xamante ni dañu bëggoon laaj indépendance Sénégal moom boppam diggante août jàpp septembre 1958 général de Gaulle waroon def tournée ci dëkk yi nga xamanteni ni nii dañu bokk ci li nga xamanteni moy France manam dëkk yi nga xamni France daf leen coloniser. visite bobu nak tiitaloon ay leader africain yu bari ay njiitu africain yu bari visite bobu titel len parce que amoon ñu ci jëloon ay engagement ci décision yu ñu jëloon ci congrès bu Cotonou manam ngir Afrique am indépendance ba mu jeex tak moom boppam rocceeku ci France am ay leaders africains yu ko signé ñëwoon waaye bi De waree ñëw dañu rocceeku ndànk daw décision bi ñu jëloon ñu dellu ci ginnaaw boo jëlee réew mu mel ni Sénégal jamono jooju daanaka benn leader nekku fi woon bu ñu waxantee dëgg Senghor jamono yooyu dafa daw dem vacances fi nga xamante ni mooy Normandie Mamadou Dia aussi fekkewu ko woon parce que dafa demoon Suisse pour faju ji dafa feebaroon maanaam jamono jooju Sénégal amul woon benn njiit bu fi nekkoon maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi jox leen ay ndombal tànk yi gën a mag nekkuñu fi woon bi fi dëggul di ñëw. ci jamono joju comité de défense des libertés démocratiques ak PAI bi nga xamanteni ni Majmout Diop moko jité won ak conseil de la jeunesse du Sénégal estudiantine ak jigéen ñi suñu yaay ak suñu mami ñoo daral général de Gaulle ci place protège, nek tay place de l'indépendance bi nek Dakar le 26 août 1958 ñom ñoo taxaw jamarlok général de Gaulle bés ñu bëri bëgg nañ ko akimo ni ñoko mom alors que ni joué wuñ ci woon rôle bi tax ñuy wax bu ñu waxante dégg histoire la leen di wax te histoire amul nëbbatoo am na ñu bëri ñoo xamante ni neewoon nañ fa lañ nekkoo woon xeex nañ itu mais bés boobu noonu bu wax dëgg neexee ña fa joué woon rôle bu tax ñuy wax xam nañ leen d'ailleurs ñu doon yuuxu di wax ni ñoo fa nekkoon ñoo doon kaas kenn mënu la génneel seeni photo bés boobu noonu ñu ci bëri dañoo dawoon Majmout Diop bi nga xamante ne nii bokkoon ci leader yi ëpp solo ci jamono yooyu noonu xeex boobu noonu le principal organisateur wala l'un des principaux organisateurs moom moo dajale mbooloo bi organiser leen en tant que leader pour ñu defar li nga xamante ni mooy ay pancarte ak ay banderole ñi nga xamante ni bëgg nañ ci ay preuve mun nañ dem ci institut national de l'audiovisuel pour gis film yi ña fa nekkoon jour boobu noonu ak liggéey bañ daan def dinañ gis film yi yëpp dinañ xam ña fa woon ak ña nga xamante ni nii ña nga fa woon au début mais bi dëggal di ñëw dañu daw te après ñuy wër ci télé rajo yi naan bés boobu ñoo fa taxawoon di xeex alors que ni la yàlla xam doy na comme ni ma ko waxee woon sànq rek bésu 26 août 1958 de Gaulle wara taxaw nak place de l'indépendance jàmmaarloog askan bi nga xamanteni ni ñoom it préparé nañ seen lépp def seen pancarte taxaw nako duñu bëgg mom suñu bop comme ni ma ko fàttalee woon sànq Léopold Sédar Senghor jamono jooju dafa daw dem Normandie toog fa ne day def vacances. comme que nag nekk fi ñu bàyyi mbir yi ki nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye jamono jooju Valdiodio Ndiaye moo nekkoon ministre de l' intérieur remplacé ki nga xamante ni mooy président du conseil de gouvernement bi nga xamante ni mooy Mamadou Dia donc moom Valdiodio Ndiaye moo waroon wax jàmmaarug dégul ak mbooloo mi wax lan mooy position bu Sénégal. ca bés boobu nag dafa doyoon waar li tax mu doyoon waar muy public bi fa ñëwoon tertu de Gaulle la ñu bëggoon mooy indépendance mais Valdiodio Ndiaye moom fi mu bokk muy UPS bi nga xamante ne nii Senghor moo ko jiite ñoom li ñu bëgg mooy Sénégal di woy di des ci ndigalu France donc Valdiodio Ndiaye dafa nekkoon comme ni ko tubaab di waxee entre le marteau et ni ko ndem si yàlla si Sidi Lamine Niass doon waxee sa gëddee si giddee donc Valdiodio Ndiaye bis boobu noonu dafa amoon rendez-vous ak histoire parce que askan mi ngi taxaw di laaj indépendance mais ca beneen wet parti politique bi nga xamante ni fa la bokk ñoom ànduñook li masse bi bëgg. ci boobu noonu ci histoire ci ay nettali Roland bi nga xamante ne nii dafa jege woon lool ki nga xam ni mooy Mamadou Dia moo bind discours pour xamal que ni Sénégal dafa bëgg indépendance moom boppam rédigé ko jox ko ki nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye Valdiodio Ndiaye jël ay responsabilité nag liir ko te boo xoolee. hypothèse boobu nonu Mamadou Dia ci boppam sax confirmé na ko ci li nga xamante ni mooy ay mémoire am parce que Mamadou Dia moo xam ni Roland Collin ci boppam mu nga xam ne moo nekkoon directeur de cabinet am moom dafa favorable pour que ñu voté non maanaam Sénégal moom boppam indépendance bi tax ñuy wax bés boobu valjojo ndiaye wax discours bi nga xamante ne la jagleel général de bésu 26 août 1958 malgré Fateli avant référendum bi ci wara amal le 28 septembre 1958 manam diiru benn Wer discoursu discours Valdiodio bi ñu ci fàttali rek quelques cadeaux ba mu jàkkaarloog De daf ko ne indépendance lañu bëgg mbolo Afrique lañu bëgg dajale Afrique lañu bëgg mu doli ci ne. politique Sénégal bi nga xamanteni ni ci lañ nam doxale suñu réew jamono ji dañ ko bëgg a ci ñetti mbir ñetti mbir yooyee mooy moom suñu bopp benn ñaareel bi di unité africaine maanaam mbooloowu réew afrique yi ak créer ay kuréel yoo xamante ni dina tax ñu gën a dëgëral suñu nekkin gannaaw ba mu fësale li nga xamante General nii mooy discours am moom Ndiaye général de Gaulle feelu ko ci tontu bu gaaw ne ko s'il veut l'indépendance qu'il la prenne mu ne bu ñu bëggee indépendance ko jël donc bis boobu Valdiodio Ndiaye dafa wane mat fit ak li nga xamante ni mooy bis bu taxee ba métti nga far ci li nga xamante ni mooy sa côté askan donte fa nga bokk parti ba nga bokk ànduñu ci li nga xamante ni nii mooy yow xëy na peut-être sa doxalin wala bëgg-bëgg askan wi d'ailleurs le 4 avril 1961 moom mi nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye moo soppi turu place Protet lippee ko place de l'indépendance le référendum constitutionnel du 28 septembre 1958 oui bi gagné ci 97,2% Sénégal day yor statut état mais day beaucoup ci li nga xamante ni communauté française doxali ni réew moomu manam Sénégal day nekk république bo xamanteni ni day moom boppam mooy gérer li nga xamanteni muy administration mais day nekk ci dépendance métropole bi muy France. Lolé di wëy ba janvier 1959. Sénégal ak Mali boole seeni doole pour former li nga xamante ni mooy fédération du Mali maanaam nekk benn réew jamono joojee le Sénégal moom boppam définitivement nekk réew mu indépendant gannaaw ba ñu defee li nga xamante ni mooy accord de transfert de pouvoir bésu 4 avril 1960 waaye nag fédération boobu noonu la ca topp yëg nañ ko dafa tas bésu 20 août 1960 Sénégal ak Mali séparé wu bi ñuy dugg fi nga xamante ni ONU le 28 septembre 1960 Madame ku ci ne duggee ak sa statut bopp. donc indépendance bu Sénégal nii la demee historique bi fàttali bi yan yoon lañu jaar lan moo précédé li nga xamante ni 1960 ñan ñoo taxaw ngir xeex ko bis bi fi De di ñëw ñan ñoo taxaw jàmmarloo ak loolu lépp ñu leeral leen ko pour que ngeen xam ñan ñoo tax ñu yegg si fii tey ñan ñoo tax ñu am indépendance donte indépendance bi xëy na peut-être mën nañ ko wax ci làmmiñ kese la parce que am na lu bëri loo xamante nii des na moomeel bi. des na nekkul ni yaay diriger réew yaay fal am nga président bu dëkk sa biir réew yaa ngi gouverner et tout mais moomeel bi mun nañ ko gën a yaatal ci lépp loo xamante ni duñu ne lépp sax mais la gën a am solo ci sa réew nga koy mën di fajal sa bopp di ko defal sa bopp. te doo soxlawu di tënku ci benn ndigalu borom yi doole yi nekk bitim réew donc am na liggéey bu am solo bu ñu war a def ci li nga xamante ne nii mooy indépendance bi tax ñuy wax ngir suñu réew yi moom seen bopp di demal seen bopp ak doomi réew yi nga xamante ni amaana seen xam-xam màcc na ci fànn yi nga xam ni suñu réew soxla na ci yokkute soxla na ci développement. donc occasion 4 avril bi lii la woon ñu fàttali leen histoire du Sénégal fa lañ tàmbalee ak fa lañ jaar ba am li nga xamante ni mooy indépendance donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.